ahousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi mbokki àdduna wërngal këpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne jamono ñu nekk yéen ay safoo seen télévision Touba Argentine TV tey ji nag ñu dikk ak sunu équipe fi nga xam ne mooy Touba Argentine La Plata ndax ñoom kat ku ne xam na ni màggal gi fépp foo dem ci àdduna rek tey ji ña ngi ko fay waajal kon nag tey jii ñu ñëw fii nga xamante ni mooy dal li nga xam ne fi la di fi def li nga xam ne mooy wàccaayu màggal gi ku ne màggal nag ni berne tey jii fi nga xam ne mooy waañ mi fas yéene leen wan li nga xamante ni moom la waa Touba Assane La Plata daare biri jësu xóolub li nga xam ni moom la démarré jëmale suba ku ne xam ne tey ji la 17 safar ñoom nag ñu ngi ci loo xam ne wàccaay lu am solo la kon bu ko defee rek boo leen ci toppee rek incha allah ñu digtal leen li nga xam ne moo fi jot a ruus suba ak léegi incha kon bu ko defee dañuy jàll si fi nga xamante ni fii la soxna yi nekk mu mel ni jëwriñu soxna yi mooy soxna Ndumbe kon bu ko defee soxna Ndumbe ñu ngi lay nuyu baax di la ziar euh, wala ma soxna si dafa mel ni fii na ñoom ñoo ngi ci berne yi waaw soxna si ñu ngi lay nuyu baax di la waa télévision Touba Argentine TV tey ji ñoo leen seet si woon euh, bëggoon a xam màggalu Serigne Touba gi nga xam ne àdduna wëngal këpp dañ koy màggal yéen ana ban tolluwaay ak benn taxawaay ngeen am ci li nga xamante ni si ni mooy màggal gi loo ñu ci mën a wax asalaamaaleykum waa Touba TV Argentine ñun ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu déplacement bi ngeen def euh, jóge capital ñëw La Plata ñu leen di wax nag dal leen ak jàmm bisu Serigne Touba bi nga xam ne moom lañ taxawal fii tey ci Touba Argentine La Plata euh, ñuy sant ñëpp nag di wax euh, sëñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér màggal gi nag ñun nii lañ ko préparé rek waaw kon mu mel ni suba ba tey yéen a ngi ci wàccaayu berne yeeg ak ya ci ajoog wala mu xar yeeg ginaar yeeg yooyu ñu bëgg a xam yéen comme que jamono ji ne yéen soxna yéenay nekk ci li nga xam ne mooy waañ wi ñu bëggoon xam at yi jiitu ak at yi weesu yan euh, maanaam yan développement ngeen gis yoo xam ne am na ren te amuloon ci at yi jàll wax dëgg yàlla suñu waxee dëgg rek te yàlla tax dañuy wax ne ren moom ah duma ni màggal dina ko dàq de wante li ñuy wax naan màggal boo nga xamante ni Ah, balaa kenn màggalaat daal wax dëgg yàlla balaa màggala ñëwaat dinañ waajaat màggalu déwén parce que màggalu ren bi moom macha allah ala daw na waaw moom daal kontaan daal waaw wasalaam mu mel ni tey ji sa mbokk soxna yi na ni ñëpp tey yëg-yëg bi daal mel na ni benn la daal waa yëg-yëg bi moom benn la moom parce que maa ngi fi ak sama rakk Ndumbe Thiam mhm. nekk fi ak sama jabar Mati Mbay xam nga euh, suba yeneen jigéen yi war a jógee capital dinañ ñëw incha allah jigéen leen gis bu neexee yàlla moom daal màggal gi ren moom wax dëgg yàlla kontaan nañu daal dañ ko fusionné entre capital ak La Plata waaw jigéen ñi capital dañoo separe wu ñuy ñëw fii ñiy dem capital wax dëgg yàlla waa ma ciy def de passage di nuyu sama mbokki jigéen yi nekk capital yëpp di leen wax màggalu jàmm ak salaam. jërë ngeen jëf kon kooku mooy soxna Asu moom mi nga xam ne mooy jëwriñu jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci waam yi moo jiite li nga xam ne mooy xidma jigéen ñi bu ko defee tamit ba tey ñoo ngi fi ak ay góor yàlla ku ne jigéen ne góor fu nekk foo xam ne si nii rek jigéen nekk na fa kon da ngeen xam ne góor moo ko dooleel kon góor yàllaa ngi fi kon buñ ko gisee rek dañuy gis ki nga xam ne mooy sëñ Ablaye sëñ tamit moom jëwriñ la ci li nga xam ne si nii mooy liggéey bi kon sëñ Ablaye ñu ngi lay nuyu a baax waaw di ziar ñi waagu waañ bi yëpp wax dëgg yàlla wax dëgg affaire moom ñëpp dañ see kontaan lool ndax euh, gars yi suba ba léegi ñëpp doon dagg seen liggéey ngi liggéey seen Bamba bi waaw taxaw taxaw bu mat sëkk wax yàlla li seen yëpp góor yàlla yi fa def muy berna yi yëpp nga seen bëgg a def sëñ bi sëñ moom li mu wax dafa yomb sant leen ma suñ borom rek la sant waaw moom la ñu wax kon yaakaar naa kenn ku nekk bi sëñ bi bu jotee dañ see war taxaw taxawaayu jullit waaw taxawaayu murit waaw ñun ñëpp am si kontaan am si feerte waaw bëgg ko màggal màggal ko mucc ayib waaw di ci éviter si mbokki nasaraan yëpp nag di ci éviter mbokki taalibe yëpp waaw taalibe cheikh yi yëpp waxuñu kenn daal ku yeewoo la plate di lay woo si bis bi waaw ñëw màggal ko ñun ñëpp àndandoo ni nga ko daa def ay at yu jàll yëpp wax dëgg yàlla da am kontaan tamit ci Touba waaw di am kontaan si ñoom wér waaw maa si taxaw wax dëgg yàlla na nga ko rafet wér wér wér wér wér ndax amuñu dara lul bis sëñ jox nga xam ne amuñu dara lul bis bi jërëjëf sëñ Ablaye mu mel ni jamono ji nekk yow comme que yaay nekk ci waañ wi te jamono ji ne fi ngeen nekk ku ne Argentine ne réewu nasaraan la ndax yéen a ngi pare loo xamante ni pour nasaraan yi environnement bi fi nekk pour bu ñëwee préparation ndax ku ne xam ne sunu culture ak seen culture am na benn jamono boo xam ne day am différence ci wàllum lekk geeg naan bi waaw wax dëgg fa yàlla moom euh, am na mbokki nasaraan yoo xam ne ñoo ci biir duñu jàppale ci liggéey bi tamit soxna yi tamit yàgg nañoo nekk ci waañ xam nañ euh, nasaraan yi duñ bëgg xam nga moom nasaraan yi moom bëgguñu la comme ça yu xaw a saf yooyu waaw am na wax dëgg ñoo xam ne chaque année ñu doon si jàppale bu wér a wér ba mbokk na sax bu ñëwee tamit nañ leen taxaw taxaw bu wér ba nga xam ne ku ñëwoon ren bu déwénee booy ñëw da nga ñeneen ñoo xamante ni ñëw ñëwoon sa at mooma waaw loolu ñu si am kontaan bu wér a wér a wér liggéey sëñ Bamba daal kon kooku mooy sëriñ Abdoulaye Guèye moom tamit jëwri la ci li nga xamante ni mooy waañ wi kon bu ko defee rek dañuy xooliwaat soxna yi xool ban toll waaye lañ am ci so euh, kii bi mu mel dañoo gis benn soxna mu nekk ci wàllum rusi yeeg ginaar yeeg yoo nga xam ne si ni maanaam saf na xorom loolu ci màggal gi soxna si ñu asalaamaaleykum euh, waa Touba Argentine ñoo ngi leen di di leen ziar. ñu bu baax a baax nag ndax soo ba léegi moom macha allah berne yi bari na boo xoolee sax nag màggal ko suba lañ ko démarré. macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal commencé bi bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabil aalamiina. macha allah yéen euh, ngeen fas yéene waajee suba ci li nga xam ne mooy xeetu berne yeeg ak xeet yi nga xamante ne mooy préparation ndax ku ne màggal nag ne berne te ku la gis xam ne yaa ngi ci wàccaay li ana yan ngeen wàcc xeetu wàccaay yoo xam ne pare ngeen ko pour suba incha allah. Ah, suba moom moom yaa lépp a ngi fi daal macha allah allah moom daal na ko teel yàq <laughs> dina ala taw bu soobee yàlla na xeetu berne ak sant kon bu ko defee tamit euh, Baye Fall yi kon ku ne xam na ni yoonu Serigne Touba moom yoonu Murit yoonu Baye Fall ndax gars yi dañuy wax sax léeg-léeg naan euh, Bamba ñi Mbàkke laak Fall mu mel ni Baye Fall yaa ngi fee ñoom tamit suba ñu ngi ci xidma bi kon bu ko defee dañuy jàll ni ci Baye Fall yi laaj leen ñoom nuñ dundee màggal gi salaamaaleykum wa rahmatullah mel ni ñoo ngi janoo ak euh, njoolum Cheikh Ibrahima muy ku ràññee lool ci sikarullah Serigne Njool ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar Ibrahima a Lamp Baal Mouridina ñu fas yéene barkeelu rek bara ñoo wax dara la ilaha illallah faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha ilaa laay faal Cheikh Ibra laa ilaaha illallah laa ilaaha ilaa laay faal bur yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha ilaa laay faal maam Cheikh laa ilaaha illallah addiya Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina jërëjëf waay Baye Fall ñu ngi siyaar ñëpp di baalu ak ñëpp màggalu jàmm bàkk man Seex Baye Fall lamp Baabul na ñu ànd koog suñu mbokki Baye faal yëpp fii nekk si waañu ak si xidma bi waaw jaajëf gaa yi yend fii boobu ba tey nekk si waar wi di xidma rek bàkk man Seex Baye Fall lamp Baabul na ñu ngi siyaar Baye Fall yëpp baay Fall jaajëf waay macha allah jërëjëf kon kooku nga déggoon mooy njoolum Cheikh moom jamono ju nekk mooy yëngu ci wàllum sikarullah fii ci fi rek danañ ko ànd ak yéen euh, kon bu ko defee rek euh, dañ leen di présenter lu mel nii rek waaye incha allah rabbi euh, li olof yi naan lu jeexul jógu fa mbirum Serigne Touba ku ne xam ne jamono ju nekk ak ni muy doxee bu subaa incha allah rabbi danañ leen wan lu gën a yaatu loo xamante ni rawatina lu kawe njort lay doon daal loo xam ne taxawaay boo xam ne waa Touba Argentine euh, La Plata gi taxawee nañ ko ci màggal Jës bu Xulub kon mbokki taalibe nag naa leen boo leen tegandi foofu seen baaraam rek incha allah rab suba danañ leen wan environnement bu gën a mag Ibrahima Fall tomb del si la télévision Touba Argentine TV jërë ngeen jëf